je pense que nous ñun ñëpp ñoko yëgëndo ji nga xamantene amna ci réew mi nga Turquie suñu actualité du le 6 février 2023 ci réew mi ak réew mi nga Syrie 5000 personnes manam nañ ci seen bakkan ci ay étudiants sénégalais bi di yëngatu fekk situation porte-parole des étudiants sénégalais muy wuyoo ci turu Makhtar Sow joxe na ay information ci situation sénégalaise. yi nga xamantani ne ñoo nekk réewu Turquie ko résumer ci actualité le président du parti passé, Ousmane Sonko portaat nañ ko plainte kan moo ko port plainte lan la jote ak waa ji ma porte ko plainte dinaa leen ko résumer ci actualité yi nga xamante ne moom laa leen di résumer maa ngi jégalu bu baax a baax a baax nag dama amoon problème technique loolu moo tax ba mu xaw a gudde rax ci dool yi aussi ma doon def sama point de vue ci actualité yi nga xamante ne moom laay résumer ci semaine bi bu fekkee bëgg nga koo seetaan mën ngaa bës fii ci kaw insha allahu taala léegi-léegi ñu jàll ci actualité du jour dama la naan ngiroppo njoko yong wala sax ma ne la mbaldo dafay dépendre rek ci waxtu wi nga xamante ne moom ngay seetaan vidéo bi mu nekk jéey ju tar am ci sud est dëkk bi nga xamante ne moo di Turquie ak nooru dëkk bi nga xamante ne moo di Syrie suuf sa moo yëngatu le 6 février atum 2023 muy lundi bi ñu weesu ba ci bilan yi nga xamante ne moom lañ mujjee compter ñu wax ne lu toll ci junney doomi aadama ñàkk nañ seen bakkan mu nekk catastrophe boo xamante ne nag bu yéeme la tuuse ñaari dëkk yëpp muy Turquie ak Turquie ak réew mi nga xamante ne moo di réewum Syrie wax nañ ne lu toll ci 23 millions de personnes jëye ji laal na leen mais nag am na ci 5 millions yoo xamante ne nag jamono ji may wax ak yéen nii ñu ngi ci situation boo xamante ne situation bu critique la organisation mondiale de la santé moo joxe yooyu noonu donné mu wax waale aussi ne mi ngi préparer ay ndimbal ak ay aide yoo xamante ne yu ama am solo lay doon ñu war koo jëmale ci réew bi nga xamante ne moo di Turquie ak réew bi nga xamante ne moo di Syrie ndimbal yooyu ñu ngi koy xaar mu war a yegsi ci bésub tey bii nii di talaata mais li ci gën a yéeme mooy magnitude bi bi nga xamante ne calculé na wax na ne séisme bi mi ngi toll ci 7 virgule 8 li ci gën a yéeme nag mooy bi nga xamante ne suuf si yëngatu na ci réew mi nga xamante ne moo di réewu Syrie ñi nekk ci réew mi nga xamante ne moo di réewu Liban yëg nañ yëngatu suuf suuf si rax ci doole aussi ñi nga xamante ne nekk nañ ci réewu Irak ci nord bi ñoom aussi wax nañ ne yëg nañ suuf si nga xamante ne yëngatu na ci réew mi nga xamante ne moo di réewu Syrie mu nekk yëngatu boo xamante ne bu am doole la réewu turki ak réewu Syrie yeewoo ko ci bësu talaata bi. bu fekkee ci réewu Turquie rek ci jamono ji may waxee ak yow nii lu toll ci trois mille quatre cent dix neuf personnes ñàkk nañ seen bakkan ci jéye ji lu toll ci vingt mille cinq cent trente quatre jëlee nañ ci ay gaañu gaañu vice président bu réewu Turquie muy wuyoo ci turu Fuat Oktay moo joxe yooyu noonu information. bu ma ñëwee ci réewu Syrie nag wax nañ ne lu toll ci mille six cent deux personnes. ñak nañ seen bakkan lu toll ci 3640 am nañ ci ay gañu gañu mais nag données yoy non ci réewu Syrie mi ngi concerné parti bi nga xamantene ne rebelle yi ñoo fa bu fekke parti bi nga xamantene gouvernement bi ñokoy contrôler bilan bi mi ngi toll ci 812 personnes yo xamantene ñak nañ seen bakkan ak lu toll ci 1449 yo xamantene am nañ ay blessé ci jéey ji nga xamantene mo am ci réew mi nga xamantene ne moo di réewu Syrie li nga xamante ne moo gën a sonal secouristes yi nag mooy seddaay bi ak taw bi nga xamante ne dafay taw ci réew bi nga xamante ne moo di réew Turquie parce que jamono ji ñu toll nii dañoo nekk ci hiver ci zone Europe bi te hiver bu ñu ko waxee sedd la ak nees ak taw loolu aussi bokk na ci li nga xamante ne moo gën a compliquer bi mais nag ndimbal yi mi ngi jóge fu nekk ci àdduna bi président réewu Turquie muy Recep Tayyip Erdogan wax na ne lu toll ci cinq dëkk maanaam ñeent fukki réew ak juróom ci àdduna bi yónnee nañ ay ndimbal ci réew mi nga xamante ne moo di réewu Turquie mën naa jee tudd réew mi nga xamante ne moo di réewu France ak Canada ñoom ñoo njëkk a commencé ci ndimbal ginnaaw loolu aussi njiitum réewu États-Unis d'Amérique muy Joe Biden aussi wax na ne dina yëkëti ndimbal bo xamante bu am importance la jëmele ko ci réew mi nga xamante modi réew Turquie réew Chine aussi wax na ne dina gënë ci lu tollu ci 5,9 millions de dollars ngir dimbale ko réew Turquie bolé ci aussi ay spécialistes yo xamante seen xam-xam dafa jëm ci wattu wala bok dimbale nit ko xamante dafa nekk ci ay jafe-jafe mais nak bu féké réew Syrie réew mi nga xamante modi réew Russie mom lay xaar ngir mu dimbale ko parce que mën naa ne réew Syrie ak réew Russie ñoo gëna déggo ba tax na jamono yi nga xamante moo jëm ci réew bi nga xamante moo di réew Syrie ak réew Turquie du yem ci zone bi nga xamante gouvernement bi kese ñoo koy contrôler mais dafay jàll ci beneen zone bi nga xamante aussi rebelles ñoo koy contrôler parce que wax nañ bu ñu boolee réew Turquie Turquie ak réewu Syrie ci zone bi nga xamante ne rebelle yi ñoo koy contrôlé lu mat 700 personnes ñàkk nañ seen bakkan ci mbir mi nga xamante ne am na bu fekkee étudiants yi nga xamante ne ñoo nekk ci réewu Turquie nag porte-parole des étudiants sénégalais muy wuyoo ci turu Makhtar saw wax na ne jëye ji amul benn sénégalais boo xamante ne ñàkk na ci bakkanam mais nag am na ci ñaari étudiants Sénégal yoo xamante ne jëlee nañ ci ay blessure mais nag wax na ne jamono ji nga xamante ne moom lañu toll nii moom euh, ci ñi nga xamante ne ñoo nekk ci suufu bâtiment yi ràññewuñ ci benn sénégalais te ñi nga xamante ne aussi ñoom la ñuy woññi ñu bokk ci ñu génn àdduna amul benn sénégalais boo xamante ne bokk na ci. le président du parti Pastef Ousmane Sonko tegaat nañ ci kawam beneen pelent ginnaaw bi Adji Sarr ak Mame Mbaye Niang porté ko plainte ko porté plainte nag ab policier la mi ngi wuyoo ci turu lan la jotee ak Ousmane Sonko Frédéric ci boppam mooy wax ne Ousmane Sonko dafay yëkkati ay kàddu yoo xamante ne fitna la di ko jëmale ci réew mi muy waxaat aussi ne dafay woote li nga xamante ne moo di fitna fitna boo xamante ne ay bakkani doomu aadama mën nañ cee rot mu waxaale aussi ne usmaan Sonko dafay wax wax joo xamante ne wuute na ak dëgg di ko jëmale ci réew mi. mu nekk ay tuuma yoo xamante ne teg na ko ci kaw président du parti Pastef muy Ousmane Sonko. Frédéric yemul ci loolu aussi parce que plainte bi nga xamante ne déposé na ko lundi le 6 février atum 2023 mi ngi wax ne Ousmane Sonko dafay wax ne moom ci boppam moom Frédéric ab faatkatu doomu aadama la c'est-à-dire ab criminel la. rax ci doolu aussi mën na faat doomu aadama te du ko wàññi dara. mu wax aussi ne Ousmane Sonko daf ko tuumaal li nga xamante ne moo di comploteur mu wax aussi ba ne Ousmane Sonko dafne ne dafay génne ay information yoo xamante ne information confidentielle la di ko jox ay partisans di ko jox aussi ay xaritam mais nag Frédéric Napel wax aussi ne. bi nga xamante ne Ousmane Sonko yëkkati na kàddu yooyu ba noppi booba ba tey nekkatul ci jàmm parce que am na ci ñoo xamante ne dañ koy yónnee ay message di ko def ay menace de mort am ñoo xamante ne aussi dañ koy woo ay appel di ko def li nga xamante ne moo di menace de mort nee na nag loolu moo waral mu yëkkati ab plainte jëmale ko ci président du parti Pastef muy Ousmane Sonko plainte bi nag mi ngi ko déposé lundi le 6 février atum 2023 mu nekk coow loo xamante ne je pense que ne ci justice lañ ko war a réglé mu tombe fi nga xamante ne effectivement fi lañu war a tënkee actualité bu tey bi ma jox leen dig daje ba suba incha allah ci beneen format boo xamante ne mooy gën a yaatu ma di leen ñaanal aussi guddik jàmm